yàlla eh, may xale yi toll ci liggéey bëgg liggéey te amaguñ ko yàlla yàlla may liggéey yu barkeel xale yi toll ci njàng yàlla yàlla gunge leen seen njàng mi ba leen ci sentu ci njariñ yàlla defal leen ci lu kaw seen jot yàlla na yàlla eh, jubal suñuy njiit moo xam ñi jiite penc mi la wala ñu jiite ji def ci ñoom maanu jub ragal yàlla yërmande ci askan wi ànd ngir jariñ askan wi bañ di kompaloo ngir di jariñ ñoo askan wi yal na yàlla yërëmal ji suñuy way dawlu suñu way jur yi jiitoog bokk yi jiitoog wëlëre yi jiitu ak bokk jullit yëpp yal na yàlla yégal leen ci barsax seydina muhammad seen bàmmeel yàlla doon xaarukaay àjjana allahuma la tahrimna ajrahum wala taftinna baadahum yal na yàlla sàmmali suñu diine sunu ngor ak sunu bokk yàlla bu mu xajam àdduna yàlla bu mu xajam alaaxira mbas mi yàlla ko fi yàlla jële ba mu jeex tàkk lu ci waay raxas ci ay pexe yàlla ko yàlla nasaxal ci barke seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ah, ñu nekkoon di wax ci almasuliya te mooy la responsabilité yàlla ci boppam moo ñu leeral almasuliya ndax dafa am lu ñuy wax almasuliya al uzma wal masuliya suxra te mooy la responsabilité suprême ak la responsabilité inférieure ñaar yooyu yëpp nag nit daf ko war a yëg ndax yàlla moo ñu wax ni wa iz axada rabbuka min bani aadam min zuhurihim durriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yowma alqiyama inna kunna an hada gafilin yàlla nee na mi ngi ñuy fàttali nee dafa am jamono fi alami zarra ba nga xamante ni ñun ñëpp ñu ngi ci diggal suñu maam aadama yàlla nee na tas ñu nee na laaj ñu ab laaj waaw jamono bi ñu nekkee ñun ñëpp ci diggal suñu maam aadama yàlla tas ñu laaj ñu ab laaj yaa ay lay nettali di alquran nii du nii kan mooy seen boroom maanaam yéen kan mooy seen kilifa kan moo leen di war a sant ngeen di def mu leen di tere ngeen di bàyyi kan moo leen bind kan moo yor seeni mbir nee na ñu ni ko balaa ndax du man ñu ni ko ah kay yow la kay yàlla yàlla nee ñépp di ko ah kay mais yàlla nee na xam na booba ci saase xam na ñi ñi waxul dëgg ak ñu wax dëgg nee na malaaka yi ni ca tonn ni shahid naa ah yéen a wax ñu dégg de mbaa du ngeen xëy nag ni inna naa an hada ghafilin dem àdduna mu neex rek ngeen ni fàtte naa ko yaakaar naa loolu nag moo am waaw malaaka yi ni yéen a ko wax de ñoo fekke dégg nañ li ngeen wax mbaa du ngeen dem ci àdduna mbir mi neex ngeen fàtte seen engagement bi ngeen jël loolu nag yaakaar naa dal ñu bari bari fàtte woon nañu taxaw nañ ci borom bi ni ko ci sa ndigal ñaari responsabilité yooyu nag dafa feeñ ci li ñu war a def tey war ko cee jëmmal mooy responsabilité bu njëkk ba kenn ku nekk xam ne li nga war a def tey jaamu yàlla la jaamu yàlla ngay def nga jàppe ko noonu man lii may def jaamu yàlla la kon doo jaamu yàlla nag mooy li nga xam ni doo ko defee ni la neexee da koy defee ni neexee yàlla ak ni ko yàlla santaane kon bu ko defee kenn ku nekk kart yu nga yor xamal ni da ngay jaamu ji yàlla mooy voté ji jaamu yàlla nag comme ni leen ko waxee doo ko defee ni ka ni mu la neexee mais ni neexee yàlla ak ni yàlla bëgg nga koy defee benn beneen responsabilité mooy responsabilité inférieure yi mooy nañ ko tërale ci àdduna am na koo xam ni administration la nee nañ ko nii la mbir mi war a tëddi na na ko respecté kooku kooku mooy responsabilité am Soxna am na koo xam ni ab Sénat la ñu ne ko nii la moom yow lii moo ci sa cër nii la war a tëddi na respecté loolu am na koo xam ni Sénat la ñu ko yow nii na respecté loolu am na koo xam ni moom électeur la nee nañ ko nii lañuy war a voté moom maanaam yooyu na ko respecté. mais bu lii amee rek jàmm day am caw du jib lii lépp ku ku ci nekk responsabilité bi bu ko respecté def ko comme ni ko jullit benn coow lu am benn bruit di am man nag li ma tiital mooy dama dégg benn benn candidat ni gagner ou périr kooku il éliminé d'office kooku ko xam tawateel ko rek tegoo ko ci yoon damay gagner baa ma torox loolu sëñ bi seetaat leen wax waaw ki nga xam ne gis ngeen ko yéene mooy force damaa war a gañe kooku éli éliminé d'office bu ko kenn woteel damaa war a gañe par force déedéet man kay def naa li ma war a def buñ ma woteelee ma xam ne nag man la yàlla tànn buñ ma lu ma xam ne nag yàlla tànn ma loolu kay moo jàddu mais damaa war a gañe par force nga xam ne jaral na la lu nekk kooku war na li jubul kooku dalaa wan ni kii jubul képp koo xam ne mu ngi def ay ay ay ay ay dil di def ay kii commencé di kii di dugal ci yoon kooku moom boo ko watelee war nga yàlla war nga yonent bi war nga askan yàlla ñu yàlla may nag ba suñu lii ñu nar a def ñu teg ko ci defin woo xam ne ëllëg bi ñu jural musiba àllaaxira mukk ci àdduna waaw te lépp loo xamante ni nit jox na la ko ci nga dem wote ko ngir alal jum la jox wala nga woteel nit parce que dafa am yaakaaru àdduna bu mu lay defal gis nga nit nit nee naa la nit yàlla dong lay yaakaar gis nga teraanga nit yàlla dong ko yor gis nga soo teraanga soo ko wéeree ci nit yaag kooku di ngeen xëy torox bi ko ndar gam te kenn du jàppee ni diw mii man moo may tax a tedd gëm loolu yàlla dina fexe ba bala ngaa dee yéen ñaar ñëpp ngeen torox te da ngay gëm yàlla yor sa wërsëg yàlla yor sa teraanga yàlla waaw man de du ma woteel kenn parce que yaakaar boo fi nekkee defar sama affaire mukk mukk kenn yow sama affaire kenn du kenn koo xam ne yaa ànd yow yaakaar ni yow mii teraanga bi nga xam di jóge ci yow di jóg ci man bu ñëwatul ma taro amul lu mën a tey waaw man damay jàpp ne rek lépp lu ñu séq dañ ko séq rek yow man damay jàpp sax nit ki may defal moom boppam lay defal man loolu laa jàpp man ki may defal kooku moom moom moom moom moom boobu laa xool man ki nga xam ne maa ngi koy defal teraanga boobu laa xool boobu laa moom mais ki may defal loolu yër moo ko moom ndax moom ci banque am lay dugal fekk dugalagul ci banque lay dugal mais man ki nga xam ne maa koy defal boobu moom yitteel ndax boobu laa moom moo tax loolu il faut nit ñi ngor googu dellu si ci nit ñi yàlla ñu ci yàlla defal wasalaamaaleykum wa rahmatullah